wasawaar sow sant mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen ndokkeel di leen balu xaq di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan sant tàmbale ci sant borom bi jàll jalaaluhu azza kamalu mënu may ñu daje te dara taxul lu dul ngir jëmmam ci kaadarul islaam ak ci yoon wi yoonu murit di sant kon borom bi ci jàppandi bi ñu jàppandi loolu xeet ñu ci ndax nit lépp lu mu dugg te jéemu koo xam ba xam nam cay duggee nam cay nekke lam cay jëfe xam te jine bërëb ba laaj mën na ca sonn te njëriñ li du toll mu war a du toll ndax li nga xam ne mooy li ànd ak nit ba lépp lu dugg jële ci njëriñ la te nekk lépp te bu ci duggee te àndul ak loola coono la ci am borom bi tabaraka wa taala xañ ba njëriñal loola lu ma tax kon loola lu ma tax xam la sëñ bi def koo bind daf koo melowoo bind ko santaane ko xam ne ko ba mu leex mu di melaw yu jullit war a meloo loo xam ne ku dégg baat bi mu niru la lu woyof lu ñëpp nekkee loo xam ne daanaka soxla wala waxtaane fekk sore na loolu mooy di gën a diis te gën a mat a jàng gën a mat a xam mooy melow jullit bala nga agsi ci melow taalibe ndax ak taalibe ci biir cadre l'islam la nekk bu l'islam ji taxawul taalibe gi du taxaw taalibe gi it dafa am melow mu laaj te melow yi dañ ko war a xam jéem ko melow wa moo di jikko ju rafet mooy melaw xol melaw xel di meloo ba nga xam ne leer gu jóg wuti ko dugg ca te dootu génn ay bu jóg kay lor nit ci addunaam di ko lor ci sukkuraat di ko lor ci kiraayu bàmmeelam di ko lor bis ba bu ñu taxawee di dox digganteem ak pexe gu dappetoo nekk ci sàggane loolu la mooy alxuluqul xasan sallallahu alayhi wa sallam nee na jikko rafet lay njëkk teg ci balance yawmal qiyaama gannaaw moom lay njëkk teg ci balance te nee moo gën a diis ci lu ñu peese ëllëg jikko ji rafet teggin ci la tàmbalee ngeen lii jàngee euh, nas jul dinañ ko suma téere nas jul xabaar xaaj ngeen gis na teggin rek la ci sëriñ di jàngale xam leen na ci bopp bi lépp lu ñu dugg te àndul ak teggin du ca jëriñu boroomi teggin ku jege yàlla la ku jege yonant bi la ku jege àjjana la ku sori safara la ku amul teggin lépp lu dugg yàlla du barkeel loola te ki nga xam ne amul i teggin ku sori yàlla la ku jege safara la ku sori àjjana la kon defe naa ne teggin mooy li gën a bi nag daf koo jàngale façon jàngale wu nekk ñi mu ko doon jànga mu topp leen di leen sàmm di leen seet ba xam tegin yooyu mu jàngale melowoo nañ ko biir bitti wala déet saa yu nekk daf leen daan jajji waxtu woo xamee ne tegin yi mat na ndax yara ci jiitu ak teggin ci alxuluqul xasan ji ma waxoon mu di jikko ju rafet li ci tegu mooy yéene yiw bépp jullit bu mu doon nga yéene ko li nga yéene sa bopp ku la tooñ boo mënee jéggal la jéggal ko lu diis la ci ëllëg bu ñuy peese yiw yi ku la wan gannaaw nga jéem a jox ko moom def ko mbokk bu dee jullit ku la xañ nga jéem koo may nekk di ku bari njëriñ ci ñi la wër ndax ki bari njëriñ doonte yéefar lay suñu borom du ko lakk mukk kon loolu am solo bokk na kon ci melo xol yu rafet yooyu nit war a melowoo béréb bi nga nekk ak li la wër ñi ngay jëflante ñi ngay dajeel ñi nga dëkkal te gin yi mu ngi tàmbali ci sa jëmm sa jëmm jii te di ñi nga ko war moo di na fexe ba tàmbalee ci set sa jëmm set li ngay sol set fi nga nekk set nekk ku saxoo turu yàlla tàmmal sa lami ngir wax ju rafet wax yiw sëñ tuuba nee na وأول اللسان قول الخير تفز به وتكفى كل ضير لقول سيد الورى من كان صلى عليه ربه إدمانا نغا تامل سلام بي واخ يو رب ko defé da nga taxé ci sabab islam yi te dañu la fegal bëpp ay ndax sallallahu alayhi wa sallam neena képp ku gëm ak bis bu na ngay wax wax ju rafet wala nga noppi bi nga tàmmalee salaamin wax ju yiw tàmmal sa jëmm ji saw doxiin sa waxiin saw nekkiin nga meloo meloo woo xam ne foo nekk du ñu la xeet du ñu la yàpp du ñu xeet du ñu yàpp xeet wa nga bokk du ñu yàpp dëkk ba nga bokk du ñu yàpp diine ji nga nekk ñu xam ne diine ji nga nekk defar na la ba amul lenn lu la nit di xeebe ndax nit ki bu fekkente ne boole na cëpp ak yarute ak wormaal nit ñi ku ko ci xam ne nit ku mat a ngi ku ko ci dana xam ne nit ki kat diine ji mu nekk yar na ko def na ci moom dara bu ngeen seetee ñi nga xam ne ñoom la sëñ Tuubaa yaral boppam radiallahu taala anhu kenn ku ci nekk melo wi nga melowoo barki démb rek laa ko doon wax doy na lekkoon boo jaxasoog moom da jóge ci melow woo xam ne mooy melow coono ëllëg mooy melow tiis bis ba dem ci melo woo xam ne mooy melow teraangay adduna ak alaxira doo sonn ci barsàq doo sonn ci sukuraat doo sonn ci taxawaay bis ba mu nit ñoo xam ne ñu ci ëpp dañoo jàng ba xam li leen war lépp am teggin yu mat sëkk am yar boo xam ne ak woyof yéene ñëpp jàmm li ñuy wax rëy sori leen li ñuy wax añaan rëy sori leen li ñuy wax soxar sori leen loolu lépp sori leen bu fekkente ne nit ki dafa woote ne jullit la yemu ca ne it murid la fu mu dem war na nekk royukaay te loolu li koy waral kenn judduwul sotti nit ku nekk am nga sas wala yàlla sas ci sa bopp boo xam ne boo ko defee da mel na yàlla bëgg yonent bi bëgg ko sëriñ bi nga yaakaar bëgg ko nit du sàggane boppam boo tàmbalee ci farlu ak roy ndax nit fu mu toll dafa war a am bind bu tooy ku muy roy ku muy seet fu mu toll war naa am ni nga xam ne war naa am kilifa fu mu toll war naa am aada jum saxalal boppam war naa am ay royukaay royukaay benn ngay dund ak ñoom di leen gis di roy ci ñoom boo ko gisatul du ñàkk nga gis ku la tane ci doo ko tane woon ci geneen wet wet gëm la tane nga jéem koo roy loolooy taxam na ba mel ni moom ndax sëñ bi nee na fa laysa alal majdi wal makramat ida jibtaha xaajibun yaxjibuk ida ajabaka xisaalu mriin fakun minhu yakun min ka maa yuxjibuk minhu maa yuxjibuk bu fekkee ne nit yéem na la wala mu jaaxal la ci mewam na nga jéem roy euh, roy lu ko rek amul dara loo xam ne mooy tere nga àgg fa mu àgg na mu mel boo ko tàmbalee te wéy ci rek dana àgg bu ko defee taaliba bi murit bi du dund dund baahima dund baahima mooy boo soxlaa lekk boo xiifee fexe loo lekk boo maree fexe naan boo gëmmintoo fexe nelaw boo sonnee fexe noppalu boo ñàkkee fexe am boo dencu dara fexe loo denc loolu ñu bàyyi maye yëpp ndax bàyyi may bu ñu xiifee bëgg a lekk dañuy fexe lu ñu lekk bu ñu maree fexee naan bu ñu seenee fexee noppal bu ñu too ku koy def bu ëllëgee waxuma la taxawaay waaye bàmmeel yi ñàkk nga cay doon doo añ doo reer doo ndékki te loolu la dara jaru ko gannaaw nit ki fii ci àdduna bii lay liggéeyee ëllëgam te nit ki mën na defar boppam ba lépp lu mu def ak jaamu yàlla lay doon faral nañ koy wax loolu bu lekkee lekk gi jaamu yàlla lay doon dañ ko ci bindal tuyaaba jox ñu fenn mu naan noonu mu sol yére noonu mu nelaw noonu mu waxtaan noonu war naa jàng yoon bi nga xam ne ci la war a jaar ba am loolu bu am lu ne jeex ndax ëllëg kat nit ñi wuute nañu ci te rawante ci melo ñi dekkee ñii ngi dekki sañse ba jekk dara du leen manqué ñii dekki am nañu tubay ak dal ak mbaxana waaye chemise la sol ñii mel ne ci misaal vêtement la sol ñii tubay kese la sol ñii duñu am dal duñu am mbaxana duñu am tubay dañuy ngemb ñii xaw fàlle dong nga leen wër ci seen ndëgg ba yeeg xar yeeg nag yi topp ñoom di leen ree kon ku bëgg bu ëllëgee boo dekkee jekk woomal bul fàtte sa ëllëg bu la tey ëllëg li nga xamee ne kon ah jullit bi ak taalibe bi defar nañu seen bopp ci bi yar ba kenn du leen xeeb kenn du leen yàpp ndax boo fexee ba ñu yàpp la wala ñu xeeb la xeeb lu nga diine ji nga nekk xeeb lu nga réew ma nga ma nga bokk xeeb lu nga yitam xeet wi xeeb lu sa bopp loolu lu ñu war di dindi la li ci ëpp dañu ne da ngay wattu sa boroom wattu sa moroom sotti sa morom lu jafe ndax sa borom ku bari yoon mën nga ne bari na njëkkal mën nga ko tooñ mu jéggal la nga def jénn jëf rek mu jéggal la li nga defoon lépp sa moroomum jaam mi nga xam ne nag dafa lot ne yow ëllëg ngeen daje ca bis ba la mu am doyu ko mu jaaxle ku ko ameel bor du la ko baal daf lay fayu de loolu moom na wóor faral na nuy laa biire naan ku bëgg xàq yi ñu lay topp wàññi ko na ngay faral def foo jullee wala foo jëfee genn jaamu yàlla nga ñaan ñaan koo xam ne dañ koy yéene ñi nga amee xàq ñépp mu féete ca xàq jooje moo xam fatiha ak ay ayatul kursi wala lixlaas wala ay salaatu ala nabi nga yéene leen ko ndax ëllëg kat bàyyi ma yi sax ku ci tooñoon sa morom daañu leen àtte xar mi saxoon béjjën mbëkk kuy amul bëjjën fii bu ëllëgee ki amuloon bëjjën lañuy saxal bëjjën kale ñu dindi ay bëjjënam mu mbëkk ko nam ko mbëkk yoon ba nag ñu soog leen a jëri ñu def suuf te nañu doomu aadama bu doon jihaar bañ rey ko ci yoon yàlla suñu borom dekkal ko mu dem di jihaar bañ rey ko ba muy ñetti yoon it féeg bor a ngi ci baatam du dugg àjjana mukk du jéggi siraat dafay bor ba te li mu ko fas yéenee fay mooy la mu jaamoon yàlla wala bu jeexee amatul lu mu fayee ñu fab bàkkaaru ñoom tooñoon gannaaw loolu li ma wax ne teggin ak melo wu rafet bokk na ci teggin jëf yu rafet ndax suñu borom tabaraka wa taala guddi ajjuma gu nekk guddi altine gu nekk jaam bu ne daañu fab sa jëf wan ko ko fekkee ne jaam bu xam boromam nga da rus te da xalaat loola ba nga ko daataan def yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak ndeyi nit ki ak baayam bis bu nekk daañu ko woon seeni jëf bu jant sooyee daañu ko nekk yow yonent bi day kii bokk sa xeet wi lii la yendoo jëf wala muy suba ñu ne ko lii la fanaanee jëf sa baay ak sa ndey ñu ne leen seen doom ji day lii la jëf moo tax sallallahu alayhi wa sallam nee ngeen di seen i jëf ngir ngeen bañ a gàcceel seen i waajur yowmal xiyaam ndax lu ngeen jëf daañu leen ko wan dañu te ñi ñu dendal daañu ko jëf gëmm ji nga xam ne teewlu na ci xolam ne muy jëf kët bërëb bi muy jëfe lii dana ko seere ëllëg cër yi koy jëf daañu ko wax ëllëg bis bi ci boppam dana seere ëllëg lii ngay jëf ni ci man la ko defe woon jant beeg weer wi daañu ko seede ak ngelaw li boo dee sàmmoonteeg moom bu ëllëgee boo fi jógee waxtu wu ñuy rocc ruu bi malaayika yi nga xam ne ñoo koy teertu si ak melo yu rafet bi ñu nekk ak ni ñu lay bëggale ba nga jàlloog loolu lépp bu ñu nee teeñu laa delloo adduna nga dundaat nga yàlla tere mukk adduna jooju nga xam ne ay tiisi kese ak i soxla yu lay jaaxal ak i tawat ak xuloo xeex ak bañante ak coono ak ñàkk bëgguma caa dellu sarax leen bu leen ma ca dellu mukk moo tax ñu ne man ahaba liqaa allahi ahaba allahu liqaahu ku bëgg a dajeeg yàlla ëllëg yàlla dana yàkkamtee dajeeg yow yéen ëllëg ba teral la jëmm jooju janloog loolu ci kanamam te du te du wëlbatiku mukk faw mu àgg ca muy lu rafet dana sopp daje sama borom ndax xam ne bu dajeeg yàlla dana am sax nopp lii muy gis waaye man kariha liqaa allahi kariha lahu liqaahu képp koo xam ne itam jëf nga jëf ju ñaaw ba nga xam ne ëllëg jëf jeex na dabaatal jeex na tuub jeex na nga ne jàkk ca la nga jëfoon nga sib àgg ci te faw nga àgg ca da dal di sib dajeeg yàlla ndax xam nga ne loolu rek nga fi fekk bu ko defee yàlla it si dajeeg yow xam ngeen da cay tegu man kariha liqaa Allaahi kariha Allaahu liqaahu te àdduna ba nga agsi ci bi nga xam ne moom la sëriñ bi doon laaj léegi mu di seytaane adduna ci boppam mbokk na ci ñeenti noonu yi ñuy faral di wax ku ñu li ñu ñi ñuy wax mahjub mahjub mooy koo xam ne kiiraay dox na sa diggante leeru xol ak màggu suñu borom bi ku umpale suñu borom ko taala doonte jullit nga yaa ngi jullee ko woori gannaaw mahjub nga maanaam dindi wuñ say kiiraay amuloo al fatxul akbar fatx bi nga xam ne mooy tax nga jàlloog secret yi jàlloog asamaan yi juróom-ñaar ak ci nekk jàlloog malaayika yi jàlleeg ruuxu yonante yi jàlloog arasa kursi yu ak lay bëgg a xew démb ëllëg la xewoon démb te ba nga juddoogul ak li ñu nar ci at mi ak at yi ca tegu ak ni ko sama borom bi dogalee jàlloogoo moom yaay mahjub mahjub nag ay daraja la am na ñoo xam ne am nañu kiiraay yu tam ndax gëm gi sax lu wala lu woyof lay doon mahjub moom waxtu wu xamee ne nee na jàkk adduna day nekk jigéen ju màggat ju bët yi doy xëpp sew ruuj foŋ ba ñu ne sàññ mu bejjaaw ba weex tàll ñaaw ba bëgg a bu yomal xëy am jotee nag ba ñu taxaw ba taxawal àdduna ci jëmmam jooju wan ko jaam ñu leen xam ngeen cee أعوذ بالله من الشيطان لا حول ولا قوة إلا بالله يالا ما كنت كي كي خمون كم لأن موي أدنى جيجن دان خشوا جيجن دان خير موي أدنى جيجن تخوانا وشي فك يالا تعني لفك ألف موي نيكت أدنى تعني كي فك بطل bu fàttee boppam mooy bu fàtte yàlla bu fàtte yàlla yàlla fàtte ko yàlla moom du fàtte waaye day jëflante yow jëf kuy fàtte fàtte sa bopp mooy fexe ba xañ sa bopp xéewal yu màgg yooyu nga xam ne lu néew dox sa digganteeg yow boo xamoon ndax li des dox sa diggante mooy li des ci biir te xamuloo ëllëg la xamuloo tey la xamuloo kañ la mën na jege lool te doo ci xam dara nga jaay nag loolu dul jeex mukk loo xam ne xajul ci asamaan yi juróom-ñaar jëndee ko loo xam ne xamuloo da nga ko jëriñoom ñëpp te dara ndax ñu koy faral di wax rek ka gën a xéewlu ëpp ci daraja ci barke ëpp ci alal gën cee tedd bis bu tëddee ci lal lal faatum lal bi muy dee loolu lépp fàtt na ko mun ma ne ci woon jaar ñi nga xam ne ki gën a am tiis ci adduna naqaras métit bu tëddee ci lal boobu la fàtte na mboolem fu mu jaaroon ñooy ñoom ñaar ñooy ñooyam képp ko defee nag këlee woon moom bu jaamoon yàlla moo perte ki jaamoon yàlla na doon te tiis yooyu la la jànkoon dëkk ak moom it bi mu ba bi muy dee dund juróom-ñett fukki at itam foofu bu fa ba mu fa tolloo naqar yi passé na fàtte na ko jeex léegi ci saa ci sukkuraatam ci tàmbali génn ko am lay tàmbalee dugg ci xéewal yoo xam ne du dog mukk te xéewal gu ñëw gën a màgg moroomam ba àgg ci nguur gu mag nga suñu borom fi mu waxee wa ida raayta samma raayta naiman wa mulkan kabiran boo gisee foofa da nga gis ak nguur gu mag xam ngeen loolu lu doy waar la yar fàtte sa bopp mooy li ñu tàmbalee woon waxtaan nit ki li ko war ci digganteem ak boppam mu sàggane loolu lépp fàtte na boppam boo fàttee sa bopp yàlla dafa lay fàtteloo boppam nga fàtte yàlla boo fàtte yàlla yàlla fàttale fàtte ci xéewal ak bañ laa xéewal lay doon moom lañ ko xëy noonu adduna nag géej la boo xam ne ñu bare bare bari lap nañ ci ñi war di njëkk di ittee nit ki mooy fexe ba bañ a lap ci adduna te mooy sëy mébét yépp di mébéti adduna nga nekk ko ci ba ba dee mu dox sa digganteeg fàggu ëllëg nga ne ci mébét yi rek bu weer wi dee mu am nangam bu déwénee bu nangam jotee yi ngay bëgg yëpp nga aj ko ci jamono joo xam ne wóoru la da nga ko fekkee mu déet te dana tax doo ko ko ëllëg mu tax suñu borom tabaraka wa taala dana yërëm ab jaam bëri ko ci tiis teg ko ndax mu bëri yooyu wàññi ko ba mu delloo si xelam tax li gën a bari ci musiba mu dal jullit xéewal la ko xam ne gi suñu borom daf ko yërëme jaam bi teg ko ko ngir mu dellu si muñ bi mu ko muñ na tuyaaba joo xam ne doonte jaamu woon na diiru dund bi du ko ca mën a am waaw benn wàll bu doon doxantu di dox yàgg mu romb benn wàll yi boo xam ne mu ngi jaamu yàlla rek ban naaj bi jot ko telu te toxu fekki kër bi mu nekk fi mu nekkoon rek ci jaam suñu borom xamal ko ne kii kat war na jaamu yàlla ñeent fukki at mu gis ko ci basiraam muy nit ku yàlla teral ku am ay maqama fa yàlla ku yàlla fonk mu continuer fa ko taxoon a jóg ba mu demee bay wàññeeku romb kooku mu romboon fekk gaynde rey ko ba di ko lekk ku gaynde gi lekkee mu jot la moom seen ni ko gaynde gi lekkee mu daal teggi dellu kër pour mu yàlla def ko problème lool nga xalaat nit ki man benn neewoon nañ ma lay ñeent fukki at ko dundaat di ko jaamu yàlla xamaloon nañ ma it nit ki ak ñu teranga jëm am ci suñu borom loolu jaaxal ko lool da intrigué ko te dama guddi suñu borom xamal ko ne ko yéen mu jooju dund ñeen fukki at seet nanu ba xam ne ñeen at yooyu lam ca war jaamu ba àgg ca màkkaw ba muy yóotu dana tiis te mën naa juum benn njuumte bu néew tax du ca àgg ñeen fukki at yooyu mat mu dee ma gis ne dara mënu koo jotale ci màkk ba boobu lu dul ñeent fukki atam yooyu ma far ko mu dee tey ma seet ne dee gi dee gu tit la war a dee mooy mën a tax mu àgg ca maqaam moomu mooy gaynde rey ko lekk ko mu ànd ak doyadi koo xam ne kii gaynde rey na la di la lekk ñu jàllawum ak doyadi la suñu borom noonu mu wàññee fanam bi noonu mu ko métti dalee ci gaynde gi ak noonu mu ko doyadalee ci gaynde rek lekk ko rek ko lekk ko tax mu àgg ca martaba boobu waaw ji nag bokkam sooga ubbi ko xam ne mbiri sama borom tabaraka wa taala yoodu jëlee fi naheer wa yoodu dina arafi léegi yoxrijël xaye minal mayit wa yoxrijël mayita génne ndee ci biir ndund di génn ndund ci biir ndee day dugal lëndëm ci biir leer di génn dugal leer ci biirub lëndëm te dara du jaxasoo lu ci nekk fam ko natt rek fa lay jaar dara du fekkee bi mu ngi góorgóorlu am na yoo xam ne yi moo koy jàjj bi ko xelam demee kon nit war na fu mu toll rek am loo xam ne lii daf koy fàttaliku ngir loolu di ko jàjji ndax loolu xéewal la goo xam ne bokk na ci yiy jubbanti nit ndax nit ki bu fekkee ne amul fu mu toll jëmm yoo xam ne daf ko ruus ragal ko di ko jaarale yoon lu mu def du noonu mu dal ci kawam tànci ko xas ko ba mu toox lu ko amul war na di fàttaliku loo xam ne lii ci kanamam wala ci gannaawam war na di toog di fàttaliku bàkkaar bu mu a def ngir mu gecc ngir mu gën a tuub ngir mu rus ngir mu gën a woyofal boppam ba du rëy rëy war na xalaat itam li ci kanamam muy tawati ndee sukkuraat ak ni mu demee ak kiraayu bàmmeel yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bàmmeel de am na nekk gu muy nekk nit yoo xam ne amul kenn ku cay mucc bu fekkoon am na kenn kuy mucc ci tënc googu bàmmeel bi di tënc nit kon saad ibnu muaas dana ci mucc ndax saad ibnu muaas tey ba mu faatoo juróom ñaar fukki junni malaayika yoo xam ne benn mësu cee wàcc ci suuf ñëw na ànd ca jàkk ngir tedd nga gum tedd ba yonente bi sallallahu alayhi wasallam istaz al arsh li mawti saadin arsh ci boppam jaayu na ci deewuk saad ibnu muaas bi teewul saad ibnu muaas googu day bàmmeel tënc na ko parce que Zeynab doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu koy dencee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam karkanam bi dafa ñëkk koo gis xam ne am na mbir mu ne ci moom ba mu yàgg mu daj benn bi ñu ko laajee mu ne dama fàttaliku sama doom jooju la fàttaliku tëncu bàmmeel ma ñeewantu ko ba ñaan sama borom mu woye falal ko ko Saad ibn Muaaz boobu ma doon wax nga xam ne juróom ñaar fukki junni malaayika wàcc nañ ci deewam gi ñoo xam ne mosu si wàcc ci kaw suuf mukk benn sarbet ci sarbetam yi musuwaar ci musuwaaram yi mu amee rek am na daraja joo xam ne moo gën adduna ak li ci biiram teewul bàmmeel tëj ci suñ borom nag bu yërëmee jaamam te bi yenu yen bu diis ci ay bàkkaar ak dana ko di faral di teg lu diis wala mu metti sukuraat moo tax sukuraat kenn mënu caa xam ki texe ak ki texewul yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu mu fi joge dafa daan wax inna lil mawti sakratan dee am na wextan de dee am na wextan de waaye nag dañu ne dafa yóbbaale wextanu ndee ci xeetam yëpp ku ci nekk lim la jëlal mais sukuraat dana metti ci wala maawal amiloon yi wala akabirul awliya yi ndax ñi koy tax a metti yii benn seen njaboot yi ñu fi bàyyi xam ngeen wala fii daañu wax ne nit dana di siis bu ñu ko yëkkatee mu diis bu fekkee am na ku mu bëgg ku fi nekk bu gannaaw bu dee buñ ko bëggee bu ca bàmmeelee noonu nga xam ne kon bu ñuy génnee roof gi roo gi ci boppam benn dana tiisoo béréb bi mu daan jaamoo yàlla te léegi jaamu yàlla jeex na ci moom dootu jaamu ci yàlla du néeg a génn ci béréb boobu muy dëgër dëgër loolu dana yàggal sa kuraat dana ko metti njaboot yi muy bàyyi ak taalibe gi yooyu xalaat bi mu leen di xalaat du néega dem ci leen ci te seytaane yi ngi te bari na doole te xamul lu koy wuutu gannaawam dana tax muy daas daas lu roo gi dëgër dana metti sukuraat suñ yërëm ko fekk am na bàkkaar ni nga ko naroon a mbugal ëllëg ñu dajaleel ko ci sukuraat si mu metti bu deewee set becc bu demee ci bàmmeel mu leer dana metti sukuraat mu la weesoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aji gëm buy génn day mel ndax muy seet ndànk ndànk lay génn ba borom du am métit muy waaye roof yéefar buy génn dañ koy péq péq bu métti ñu ko ñuy koy rey mbaam mu ni naka noonu nit dana jëf jëf ju baax yoo xam ne dana tax ñu woyefal ko si kuraatam ba woyef toy toy ba nga xam ne bànneex ci day mel ne bëgg a nelaw rek noonu lay mel yàlla Musa alayhi salatu wasalaam xam ne ku ragaloon dee ku bañoon dee yonent la bu suñ borom nit ci bu yonent Muhammad sallallahu alayhi wasallam ak Ibrahima Moussa gën ci mbindeef yàlla bindi yépp bi mu borom basira gis ko di laaj na yow de nga ragale woon dee dee na mu mel ni mu mel ni picc moomu nga teg ci bi ay muy bi ko lu mucc taw dee génn ci métit bi noonu xol bi tàng keneen laaj ko mu ne mel mu ne te shayatin tuslax wa hiya xayat mu mel ne gàtt bu ñuy fees te muy dund ñu di ko fees noonu muy nekkee ci moom سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها ربنا يرنا نجاك من خلي بطوتي ربكم مجاي يقول له جاي من يرم خلي بيرك كي نجد بامن كي تنتي بامن صلى الله عليه وسلم يقول واو naa kenn bu mucc ci nadi bàmmeel googu naa xaasim sa doom bi sax du ci mucc mu du xaasim du Ibrahima amul ku ci mucc yéen a ji rafet nag ba tey bokk na ci li nga xam ne dana xett nit ndax yombal xiyaam fi téere yi wàcce kenn ku ci nekk téere bi nga xam ne li nga mës a def lépp bind nañ ko ci muy lu baax muy lu bon te da nga ko jàng kaw yëpp di dégg lenn mu rab ci sa kanam wala ci sa ndeyjoor ngay aji texe wala mu rab ci sa gannaaw wala ci sa càmmooñ ngay aji bañ a texe la qadrallah doomu adama dana ubbi téere bi gis ci yoolu aj te musula aji yoolu goreel jaam te musula goreel jaam yoonu saraxa nangam ci alal te musu koo def mu ne kii de sama téere man lii defuma ko ñu ko akay ah waaye da nga ko yéene woon kon jullit bi man de bu ma amoon alal danaa aji te muy dëgg ci moom ñu ko yoolu aj de alal ji amoon maa ko am ba lu baax dimbali ci lislaam dimbali ci yoon wi xattali ci doole yi moo kooka am na ko te ko dañ ko koy bindal kon nga xam ne yéene ni ma wax woon ne yéene yiw lo ama ama am doole la yiw bokk na ci meloo ñuy wax yar bi nga xam ne moom la sëñ Touba santaane bokk na ci teggi ni looy def waxal bismillah bismillah sax yoonal nañ ko ci yu bari seytaan yi ngi taxaw mu ci lekkee ci bismillah mu mel na ndox dugg ca ñam wa ànd ak ñam wa dugg ci xolam tàllal ñoo xam di lump xol waa ji di ko ëpp di ko jikkan lu bon rek xelam lu bon di ci nekk loo xam ne di topp bànneex la di ci nekk mu di ko bëgg benn mu daas daas góor góorgóorlu bañ koo def wala mu def ca tuuti wala mu ne ca liggéey muy tëdd ci laram ñëw bismillah seytaane tëdd moom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 يعرفونني لما نكون رمب لو خمنا كن خموما ما بغنا نخم دخترم يمكي أكملومي دفور أما أي أجواي فمتي لمي جفنكو ما دال دي بند بند في خمال لين سان باب شي مان لا ما خم ما تخ نخم وملنا fi kuy xalaat te xamul daf naan suñu borom kon foor gi mu fooroon ba bu amee ba nga dafa moom dafa musula ñàkk musula ñàkk am fu mu toll mu ngi am te dara leneen warula am ci wetam leneen warula am ndax di bokkaale moom ak di am yàlla di am lenn di am waaye nag masia ci boppam moo taxaw taxawaayu bëgg googu fa ahbabtu an orafa ma bëgg ñu xam ma maanaam masia moo aju ci loolu te masia suñu borom jombe naak lenn mu aju ci lenn te loola amul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 ci misaal nga bu suñu borom doon bi ñëpp dañ naan dafa bëgg ñooñu bëgg na ju borom kon juróomi martaba yooyu la nah. juróom benneel bi ci la yëfar yi dugg ci la jullit ñi dugg ci la ñëpp dugg mooy al mahabbatul amma al mahabbatul amma fi mu tegu namm gi mu namoon bind leen bu leen bañoon du leen bind mu bind yi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 bëgg googu nag nga xam ne mooy almahabatul am nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala moom la bëgg lépp lu mu bind ca cosaan nga xam ne kon li ñëwaat gannaaw buñ dee jàng alquran gis wayo ma nasiru aada allahi ila naari ak suratul xasri boo ko jàngee waa banu qaynuqa déedéet banu nudayr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 yonent bi sallallahu alayhi wa ko lu ma ko mettital suñu borom di ma ak lu ma nekk nekk yonent nga xam ne kon suñu borom ci nga tooñ ñu war laa yar wala yoon dal ci sa kaw rek la nangu ñu dale ci ci kaw nit ki waaye li lim bind lépp gannaaw bëgg na ko mayul kenn nga di ci jëfandiku loo xam ne bii jaaruloo ko ci yoon moo waral wa in aaqabtum fa aaqibu bi misli ma aaqabtum bihi wala in sabartum lahu wa xayrun bi ñu rey sayidina Hamza ci or te yonente bi sallallahu alayhi wa ba agsi ci moom fekk ñu xuuf bakkan bi xuuf tuñ yi xuuf nopp yi ci ay caq ak i teqal ma Hind bintu Utba jiite leen xotti biir bi yéey res bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam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 ci fayanteeg yonentam bobu alayhi salaatu wasalaam kon bëgg yoo xamné ne suñu borom bëgg na ko ñun nëbb na yërmande joo jo xamné duñ ko waxtaane Cheikh akoy Yazid Bistami def na mu baasata ak suñu borom tabaraka ta'ala bu mu ko moy lan xam ngeen ne jullit ñi nga xam dañu bokk ci amatu nas amna ñaari xaal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 ñi ngi sa fàttali jaam ñi xéewal yi nga xam ne moom leen yàlla xéewal ne leen bëgg leen yàlla ngir xéewal gi mu leen xéewal wadkuru ijaalakum xulafaa min baadi qawmi nuuxin ak wadkuru ijaalakum xulafaa min baadi aadin wa babaakum fi lard tattaxiduuna suhulan di leen fàttali xéewal yi leen yàlla xéewale ngir ñu bëgg yàlla bëgg googu mooy daraja ñaareel ji ndax dañ ko bëgg ngir lëf nga xam ne kon xëy na mën nañoo misaal ne bu loola dañoon duñ ko bëggati comme ñu njëkk ñaari li gën a dëgëru bëgg kon borom ñaar eh, martabay ñaareel yooyu nga xam ne moom la yonent yi jàngale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 لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه دان وقد صار قلبي قابلا كل سورة فمصحف القرآن ودير يروح بعد إلى آخره نتي نياري بيت تبون تي يوحب نتي نك ولا بنجك كت نتك بوا كل من دين لما دان ويدي ميرم وايلا جس ما خال نعوان بيت فرم دين ما نم محبة الله محبة أي درجات لوا يش نك فري على فينيو واي نو مونه خل مونا كريل نجاي جابوسن تبارك وتعالى تسنجني كوبان duñu ñaata à heure passé xam ndax laaj yi jot nañu demaguñ ca laaj yi wala ñaari waxtu a des seet leen nu na ngeen ko xalaat rek ma àggale exposé martaba yooyu mooy bëgg ñoo xam ne moom la euh,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 من بام خم خم بام بام بي جانغلي با اكسي كل يوم هو في شان بيب بيس سون بوروم نغي سي مير ني لاك موم مير مانا مو غات خامو لوموي تونت بيم تدي با غودي مو غنت سي يونت بي صلى الله عليه وسلم مونيكو في شان يبدي ولا يبتدي به مانا مير لا مو خامني دا فكاي فاني واي بي تيغي لوموي سوغا تامبلي خامني كون امو كون لي بلو خامني نميرو يالا اجنا كي رك مان نني لولا محبوب لله تبارك وتعالى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 nit ñi dal di génn ba des mbooloo mu néew Moussa dal ne suuf wandal ma xaaroon ak ñi mu àndal mu ngi toog ci kaw seesu wurus xaaroon dal di xam ne mbir ma agsi na mu song suñ borom bëgg a tuub suñ borom xamal ko ne ko sa mbir moom loo naa ko Moussa ba noppi mu dal ne Musa aris nii xettali ma xettali ma ngir yàlla ak mbokk doomu tantan la Moussa dañ koo faal yëgul sax ne mu ngi wax suuf si daal di commencé wan ba wan genn wàllu seen bi Moussa avec nii di raximi wallahi Moussa dañ ko faale suuf di ko wan mu di ko xettali xettal ñaar xettal ba muy juróom ñaar fukki yoon Moussa faale ko ba suuf si ne ko tëndeex ko suma jonn yàlla tey ma ngay wéy ba yooyu ma xiyam xaaroon nag ci diggante boobu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 yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naa ko lu bari bi aaya ji wàccee wa jannatin ardoha ka ardi samaay wala àjjana joo xam mu ngi toll ne asamaan yëpp ak suuf yi ñu ne ko bu kon fu fu safaray nekk mu ne ko isa jaa al-laylu fa yakku fay bu guddi ñëwee ana fu bëccëg di ne dafay wane pour foofa béréb bi nekk fi du leneen nekk fi maanaam li ñuy wax le monde des dimensions bi ñu nekk xam ne am na distance am na réyaay ak yooyu yëpp amatul dañ na moo tax boo ñi nga xam ne dañuy umpale